ngir bokk ci ñaari millions yi murit yi nga xamante ne bii sëriñ Abibulahi Mbàkke moom Cheikh Modou Fadal woowoon na leen ngir ñu ànd liggéeyal sëriñ Touba ci Touba ca kanam sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Sohaybu séqee jéegoom ñëw fii ci Touba ca kanam ngir bokk ci ñaari millions yi murit yooyu nga xamante ne bii daañu liggéeyal sëriñ Touba ci Touba ca kanam sëriñ Amsatu Mbàkke yëkkati ay kàddu yu am solo ngir soññ mbooleem kuréelu xasida yi fépp fu ñu mën a nekk ci biir réewum Sénégal ak bitim réew ngir ñu ñëw ànd ak moom ci liggéey bi nga xamante ne bii fas na ko yenee defal sëriñ Touba jaar ko ci Touba ca kanam lu ni mel tax na mu tàbbal ci aw ñaqam ba noppi fas yéene at mu jot mu joxe ñaari million ba noppi nag biral yàqin joo xamante ni bii am na ko ni liggéey bii Touba ca kanam di def lu sëriñ Touba nangu la li waral ay tànkam ba mu ñëw ba ci barab bi soññe la mboolem ñi nga xam ne ànd na ak moo ànd na ak ñoom ci biir liggéey Sëriñ Tuubaa bi rawat na nag jànkatu xasida yi moom nag alxuraan ak xasida mooy ay toolam waaye nag sëñ Tuubaa koo defal tawféex ci xasida yi ba nga xam ne képp ku tudd xasida rek sa xel dana nekk ci ñoom ci moom kon sëriñ bi nee na mbooleem fu waay nekk tey duuskatu xasida baa nga di ko yëkkati baa nga di ko benn bennal di ko rajas ak noo ko mën di dundee sa biir néeg ak fépp fu mu ci mën doon sëriñ bi nee na mi ngi lay woo ci biir liggéeyam sëñ Tuubaa bii di Touba ca kanam di soññ mbooleem ñi nga xamante ne bii ñoo di jullit yi rawatina taalibe yi ngir ñu tàbbal seenu ñaq ci liggéey bi nga xamante ne bii sumbal nañu ko Serigne Touba lu ci mel na ñeenti barabu fajukaay yi nga xamante ne bii tàmbali nañ ko fii ci dëkk bu sell bi di Touba juróomi oto mbalit yi nga xamante ne bii jébbal nañ ko Serigne Mountakha liñ fi jëf ci wàllu ndox waaye ndimbal yi nga xamante ne bii ñi ngi koy jébbal néew ji doole yi na daara ubbil nañu leen ay compte nag ci mbooleem banque yi wala ngeen mën a jaar ci Orange Money wala Tigo Cash ak Touba ca kanam yàlla ñu sëriñ bi boole ñu bokk ci ñi dëkk bu sell bi di Touba ca kanam